عمل كن رسول الله انك خاتم الانبياء وامام المرسلين نبوته قبل البرايا بلا بند من الام خلي ندرك فيني لو سبت موم مو جيتو هنا الجد في التين يخسر مام نعم، ادم ميكو مني بلا كوي سنگ دفر بانك بانك بي اك سما بي ديكو مول فك ان ينت محمد رسول الله انك خاتم الانبياء وامام المرسلين كون كي بولي افا ادم sëñ Tuubaa ne am naa ñetti junni at balaa aadama mais bu ko weddi ndax boo demee ci bi du bàyyi ñees wax na lu mel noonu nee na man inna nii xablal baraaya inna nii xablal baraaya hubbuwa fil janaay man bàyyi ñees ba may bëgg rasulaay dara amagul naa loolu wax bi sori na boo dee dee cee mën ngaa nangu lii boo nangu lële te te ñee dañoo nangu lële nitu yàlla fi muy tibbee ruu yëpp ruu yëpp ci aadama la wax waaye nag ëppante daraja foofa la ko yàlla programme doom ji nga jur sax magoo ko ci magoo ko ci ruu waaye ruu yi dañoo ëppante daraja loolu waral nag sëriñ bi nag liggéey liggéey bu rëy bi dellu si waat séparé wul de def na muridu laahi képp ku bëgg a dem ci yàlla dégg loolu de muridu laahi képp ku bëgg a dem ci yàlla man Serigne Touba maa ngi dem kaay nañ ñu ànd man dem na am ku man dem naa ci yàlla tijaan bi muridul laahi la murid bi tudd murid muridul laahi la képp ku bëgg a jëm yàlla mooy muridu muridul laahi ku ne ma jëm ci yàlla da nga ko doon leeral nag ñu ne lépp loo xam koy doon waaye ku bëgg dem ci rek la sëriñ bi woo wax naa ko fii démb benn waaye bu soxnaam fii ci njaaree ñu sangateeg sëñ bi ba koo jullee mu ne ko salaam mbàcc ci day daanaka sax yomb naa ñaanal ndax man gërëm naa ko ba noppi suñ ko wax yow nag kan moo la gërëm mu ne ko ah mbàcc man kenn kenn gërëmuma mu ko ku kenn gërëmul loo amee ngërëm yow kenn gërëmu la gërëm ma xam naa maa ko gërëm te yow kenn gërëmu la <laughs> ku kenn gërëmul mënut a gërëme kenn gis nga sëñ bi dafa jaaxal nasaraan bi grand moom إلى جرب لدى رجش لو عاينوا سر ما في السير ما راموا فسير موت على من ناس وأسى وإن ولي إبقاء وإكرام نيني ما يسكر بما جرب تكلم التالبي نجر ما صنع نجر ما ويت وعي لو عاينوا بلو خمون بلو رانيون ما في السير يبو ما جميل تغل كون ما رامو دون كنف dafa sayru doxal yóbbu ma mawtul ak dee la wa asar ak lor ci ñoom ala man naasawu ñu xëccoog man man waaye wa innoo toxal ma yóbbu ma nag ibqaaun sama des la fi wa ikraamu di sama teraanga man xaadimu rasul ak képp ku ma yàq waaye xamee wuñu nag yàlla nag yàlla nag mbër mu mu samp mbër mu mu samp kenn du ko daan benn góor daan wax bëri yi bëri mu naa yàlla day doom yoonam nekkul ci làmb waaye xam na mbër mi daan man ko mbër mi daan moo ko jàppale moo téq tànk waa ji ni kee daan ko yàlla xam fa tabaarakallaa kon mbàkke yow doxiin wi rafet na sëñ Mahmoudan royukaay la exemple la woon jële naa sëñ ma sàmba moom kooku moom waxumaay waxam moom ndax kooku moom sëñ mu taxaw la woon waaye ma Mahmoudan moom ay meloka ay jikkoom sëñ Moussa bi dañ ciy waxtaan ci sell ci yiw ci tedd ci yaatu ci xàmmee ci ràññee ci bëgg nit bëgg lislaam bëgg Sëriñ Tuubaa loolu nit su ko defee wàcc la loolu wàcc la loolu nag nga toog jataay bi fa tabarakallahu jataay bi nga toog nag bi jataayu teraanga barke yàlla yàgg lool yàlla nga toog téeméer rek ak ñaar fukki ak juróom ñeent waxoon naa ko daaw ko ren muy adadu latif yal na nga toog loolu képp ku ne amin yal na nga bokk sëriñ bi ñu moos waaye fu ñu yëpp guddee ñu lay ñaanal wér laal ko fanu gudda baax na waaye day ànd ak wér su wérul coono la am déet yàlla yàlla may na wér fanu gudd teraanga ji moom naan yàlla yàlla yokku teraanga loolu liggéeyal nañ la ko mbàkke loolu duma ci dem fanu gudd rek ak wér lan lay ñaanal ak sa njaboot gi yëpp bootu ci si fallu ñoom si ji gaa yëpp si ñëwuñu ndax yaa leen wàcc mbir mi ndax bi nga waxee ne xat-xataay bi ak tawta bi waaye loolu la ñuy ñaan réewum nawet la réewum Sénégal la dañuy bay kon dañuy ñaan ndox mi sotteeku fa tabaarakallaa lépp meññ lépp ñor ñëpp a xewloo loolu rek dañuy ñaan démb nag am na lu ma ko lu ma la junjoon may la warukaay yu ma daan indi muy oto bi alaaj Moussa xam na waaye nit bu fekkee sëriñ la sëriñ bi du loo du loo soxla rek nga teg ko loolu du yoon su ma ko ko tegoon mu teg ko waaye man man nag soxla bii ki nga xam ne loo fa jàmbat mu faju borom Touba Njaarim xaadimu rasul Ahmadul Xadim al Makki allasi assasa tariqata al muridiya fi qudri Sénégal wa sayida